Hmm. yow damay commencer ci sa de rêve Rap Galsen. Rap Galsen Rap hmm. Galsen Rap Galsen euh, bon Omzo dal parce que punchline j'adore. <laughs> yeah Zo yeah d'accord extrait bi après ko ko ci ok rêve le plus fou c'est quoi. rêve le plus fou rêve le plus fou. Hmm. mettre bien la famille hein. Mm-hmm. toute la famille genre gâté comme bi mo nekkee lire ñu ma doon def ma def ko sama sama euh, sa référence dans la vie c'est qui sama référence sama mère hein. mère bi euh, sa top 5 rap galsen top 5 rap galsen mm-hmm. euh, génne sa bop nak ok <laughs> amul souci top 5 rap galsen déjà Omzo parce que am touche particulièrement. particulier am. Mm-hmm. type aussi. same thing genre voilà si univers am. Mm-hmm. Mm-hmm. univers aussi euh, aussi Nizi. Nizi déjà parce que. voilà quoi faut affaire chaleur. Euh, Cash. j'aime bien technique. Mr Cash fast flow j'aime bien ça. 4 mu des benn fii nag dina xat quoi. <laughs> Ah, dina xat kay. <laughs> dina xat dina xat dina xat trop. Mhm. Bass parce que bas j'ai grandi avec bas quoi parce que Emza Emza am na Bass si moom quoi. Mhm. si son mi et tout. Mhm. par rapport au gis-gisu live bi affaire yu bëri quoi. donc bas, am na luñ ko amel quoi. d' accord voilà luñ Emza am euh, gars yu bëri question bu ñuy posé. yow ak taal bi. Hmm. dangeen ngeen ay concours rap wolof. Hmm. est-ce que pare nga bu gaa yi tegee xaalis. Hmm. nga def baatal ak taal bi. bien sûr. pare nga. bien sûr. d'accord loolu moom xam naa dinañ ci dinañ dinañ ci sëgg ñun ñun dinañ ci sëgg bu baax a baax. <laughs> compét boobu bien sûr. yow aussi gaa ñee nañ. Euh, est-ce que pare nga pour baatal ak cap vu que pig yaa ngi commencé di circuler bu gaa yi tegee xaalis sen seen diggante. waaw bien sûr game la nañ game bu nekkee or game or game la. d' accord d' accord alors ñu continuer ak euh, Emza loolu dama parenthèse la woon la si rek. Mm. Euh, Emza. Mm-hmm. entre scène ak studio bu la gënal. scène. scène scène. Euh, polygame wala monogame. euh, monogame. Emza léegi looy ree <laughs> <laughs> léegi. <laughs> Comeram mensagem até agora. Mano, gabá, né? D'accord, gangster love ou alors plus gangster love. love. Non, mais Non, pas mais Ça da metti de. Mais comment ça Gangster love ak romantique yëpp quoi. Ça dépend daal ci li xew situation bi. Hmm. OK. Euh yow bu wala bu yem boo xam ne genre plus lay plus gàtt lay jege ko njool quoi. d'accord euh, na sexy wala mu yiw. na yiw si mbedd bi sexy si man. <laughs> d'accord ok. <laughs> Euh, taay fin wala wala jongoma. ak rondeur yi. <laughs> voilà wala si diggante bi mais ah. mais fin fin bi moom. doo ko laal d'accord euh, resto wala mayga bu la gënal. non Mayiga. Mayiga c'est la euh, ak thé ban moo la gënal. thé ok euh, sa copine bu doon seet si ne la hôtel wala gaale foo jëm. boo ko bëggoon surprendre war ko toggal benn plat lan lay doon. plat. Hmm. lan la mun togg. <laughs> omelette. <laughs> ay crêpes. Euh, non. Non, bi non pomme de terre salade affaire euh, salade ordinaire. voilà <laughs> D'accord. <laughs> <laughs> ok Ça passe-temps favori là, la. rab hein. rab voilà. taxi voilà un studio. D'accord. Ça, euh, chanteur préféré quand la. chanteur. Mhm. chanteur. Ah, euh, non je dirais sur Michael Jackson Michael Jackson non Bob Marley D'accord. Bob Marley Bob Marley ok sa rappeur préféré la fille hip hop Galsen. hip hop rappeur préféré je dirais sur entre Bass et Zo. waaw Zo plus plus Zo ah. d' accord d' sa lutteur kan la. Balla Gaye. Balla Gaye ah donc boobu yéen ñaar yéen a euh, sa équipe ban équipe ngay supporter. équipe Barça supporter mais. léegi da ngaa changé. <laughs> loolu <laughs> doxul de. taay doxul d' accord sa plat préféré lan la. plat préféré. subu mhm. kanja bu normal. bu normal voilà pas subu. bu am ay lan bu am ay bu am lépp keñ <laughs> bu am ay gambas ak lépp. Mm, yoxos beeg ñoom seen. normal euh, sa couleur préférée c' est couleur préférée. Mhm. vert militaire nice ah. ok ban endroit ngay rêvé visiter balaa ngay màgget. droit naa dem Mekka. Maka waaw. Ah. d' accord sa vrai nom c'est quoi ñu terminer ak boobu. Emmanuel. Emmanuel. Prera ah. d' accord mbokk diim nga quoi. waaw alors euh, loolu moom moo nekkoon seen rubrique euh, Maay Kan nekk.